mbokku internet yi yéen ñi nga xam ni yéen a ngi topp seen kàddu seen mbokk El Hadj moo leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen jaale d'abord li ñu bokk gannaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi tey nag ñu bëgg leen a defal benn témoignage témoignage ci Sidi Lamine Niass ndax bu ngeen gisee ñu ñëw ba ci université bi fii ci mos ci mosquée UCAD bi defee ko fi dafa am lu ñu bëgg a wane li ñu bëgg a wane mooy intellectuels yi yëpp tey ñoo nekk ay jirim rawatina intellectuels yi arabisan yi waaye monde islamique d'une manière générale Sidi Lamine ñas mën nañu wax ci moom tuuti donte moo ñu magoon sax waaye am na lu ñu jot a fekkee lu mu def fii ci réew mi Sidi lamin ku ne xam na doomu daara la daara moo ko produire mu juddoo ci Kaolack ñu juddoo fii ci Dakar waaye ay cosaanam nekk fële ca kawlax nga xam ni waajuram ñëpp xamoon nañ ko fii ci réew mi di maam xalifa ñas nekkoon boroom xam-xam bu mag waaye nekkoon taalifkat waaye nekkoon koo xam ni pilier la ci tarixa Cheikh Ahmad Tidiane maam xalifa ñas moom mooy waajur Sidi Lamine Niass ah waajuram wu jigéen ñun ñëpp xamoon nañ ni moom waa Mauritanie la maanaam wax nañ ni sax shérif la waaye loolu yëpp am na solo waaye ñun aspect bi ñuy jàngat ci Sidi Lamine Niass mooy ni mu taxawee woon taxawaay bi mu amoon ci réew mi am ko ci société bi waaye am ko ci umma islam bi yëpp ah ndax Sidi Lamine damay wax ni fi mu jàngee foofu la ñëpp jànge mooy université Al azar xam ngeen ni ñi gën a siiw ci ay intellectuel fii ci réew mi université Al Azhar lañ jàngee waaye lan moo tax Sidi Lamine ràññeeku ci ay biir nawleem ak ci daara ji mooy li ko ko mayoon mooy fit wi mu amoon ak engagement bi mu amoon ak réew mi jaral ko lu nekk ndax dafa am loo xam ni damay wax ni dafa jar di fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni man lam yahtamma bi umuuril muminina fa lay laysa minna képp koo xam ne mbiru jullit ñi ni muy doxee yitteelu la bokkoo ci lislaam moo tax Sidi lamin hadis boobu déggoon na ko xam ngeen ni régime yi fi jaar yëpp commencé ko ci régime mu euh, président Senghor ba ci Abdou juuf ba ci ab Ablaye wàdd ba ci président Macky Sall bii fi nekk Sidi lamin daf doon daf leen doon affronter affronter leen lan ci wan leen ni réew mi dafa am ñeneen ñu fi nekk ñoo xam ni dañoo am kàddu ci réew mi te ñooñu ah nationalité bi bi président yor rek moom lañ yor moom Sidi lamin xam ngeen ni rajoom daan na dem fa gën a sori ci réew mi di tàllal microom sénégalais yi gën a néew doole ci ci ci ci ci ci askan wi lolou ku ne xam nako ku nek gis nako waye duma dugg sax ci limu ci walu média mais lima eppal solo pour message buñu wara jang ci Sidi Lamine ñun en tant que ay jeune yo xam dañu nek ay ndaw nek ay ay nitu bok ci famille diine liñu wara jang ci Sidi Lamine moy wane ni xam-xam kessa doyul gannaaw bo jangé ba nopi nak dafa am lo xamni mën ta ñak kenn du lako defal moy nga wacc sur le terrain wàcc sur le terrain manam di fekke combat yi ma ngi rappelé wu korok bi nga xamni marche bobu woté nako ci place de l'indépendance man ma nga fa woon wax ni marche bobu mo déclenché combat yi ngeen gis yëpp ndax même le le le 23 juin bi nga xamé ni ñu ngi dajé ci place de l'obélisque man nañ ni marche bobu moko déclencher déclenché mouvement yi ngeen fi gis yëpp ay mouvement yana mar, ñoo ñëpp ci Lamine mo daan taxaw ci kanam jité combat yi nekk koo xam ni engagement ak patriotisme ci réew mi ragal naa ni kenn du ko werante waaye nag malheureusement réew mi yee yéen a ma gën a xam li fi nekk Sénégal booy dund ñëpp dañ lay boo amee ay principe nekk koo xam ne da ngay bañ yow da ngay bañ ba ngay bari ay ennemis ñëpp dañuy jóg di la attaquer ni la yow nitu fitna nga nitu violence nga da ngay yee fitna waaye tey bi mu faatoo ñooñu doon ko wax ñoom ñoo occupé tey médias yi ak rajo yi di wax ni Sidi Lamine moo gën ci réew mi loolu nag dafa am rek luñ ci war a jàng ñun en tant que ay intellectuel religieux mooy wane ni amul benn combat bu mus a yomb amul benn combat boo xam ni nit daf ko mus a taxaw di ko xeex mu yomb damay dellu tuuti ci benn béytu Serigne Touba bu mu wax Cheikhul Khadim dafa wax ni sababu xaybati an allaha arada an anaala minhu jaah wa an akuna shaafi an lil xaw mi wa an akuna xaadiman lid daw mi Serigne Touba nee na biñ may jëlee fii di ma yóbbu di exilé man cheikhul khadim ben cause rek mo taxone ñu bay exilé moy wa an shafian lil khawmi dama nekkon ko xamni damay xéxal sama xeet damay xéxal sama peuple kon dañuy wax ni képp ko xamni da nga ni njabotu Serigne Touba nga da nga wara ranger wu ci ginnaw peuple bi na Serigne Touba peuple bi la doon xéxal buñ démé ci ku melni ne Seydil Hadji malik dem na ci ben mbindam mu wax ni ala himmati fajal ilahi aliyatan li ansirtu hurran khalisan kullu wijhati mu ne yow yàlla yàlla nga yëkkati sama yitte ba mu kawe waaye boo yëkkatee sama yitte ba mu kawe yàlla nga ma may ma nekk ko am liberté total kon liberté total mag ñi moom lañ doon xeex léegi nag dafa am kenn koo xam ni da doon xeex liberté di xeexal peuple am tey mu daanu ci ci ci xare bi maanaam li naan drapeau bi dafa daanu ci dafa daanu dafa ànd ak drapeau am daanu muy Sidi Lamine ñas moo tax damay wax ni ñëpp mën nañu def ci moom témoignage waaye ñun boo gisee ñu mën a wax ci moom. xëy na xamoon nañ idéologie bi mu doon combat dafa mus a gëm ni penc mi kenn mënu ko tabax te doo ci boole diine te loolu nag damay wax intellectuel yi ñu xam ne du lu ñuy maye mais nit ki mooy xeex ba àgg fa ñun waxuñu ni Sénégal day nekk état islamique de il faut mu leer waaye du ñu wax ni réew mi nañu jox cër diine jox cër diine mooy boole ci ñoñ diine maanaam sunu loi yi nga xam ni dañ koy atte ñu bàyyi ci xel diine Sidi Lamine loolu mo mës a nekk combat, dégg dembu Ousmane Sène nga xamni kuko ku won la mune Sidi Lamine justice rek la daan wax bo waxé mune la justice justice tey contexte bi ñu tollu bu fekkee dañuy waxtaan rek tay waxante dëgg xam ngeen réew mi justice bi amna problème justice bi amna problème légui nak nan lañuy fexé ba combat yi mu mëné won mom Sidi Lamine ñun génération bi ñu continuer ko loolu moy wax ji moy wane ni réew mi kenn muko, sénégalais yépp ñofi yem même pied d'égalité lo fi amul rek ci yow la loo fi amul rek ci yow la loolu nag appel bu may lancé le intellectuel yëpp waaye rawatina arabophone yi ñi ñuy tuddee ay ay ay arabisant waaye rawatina jullit ñëpp rawatina jullit yëpp ñu gën a taxaw ci réew mi xam ni réew mi le Sénégal d'abord kenn mënul defar jàkka wala ngay defar université ak lu mu mën a doon te réew mi ci boppam jagul kon loolu message la bu ñuy lancer rek pour sénégalais yi nga xam ni ñoo bëggoon Sidi Lamine di wane ni nag man sama xel dal na ndax xam naa ni junniy Sidi Lamine ñu ngi ci réew mi ñu ngi ci réew mi junniy Sidi Lamine yu gëm li mu gëmoon gëm même xeex bi mu bi mu gëmoon xëy na nag moom am na chance nit ñi xam ko ndax ci média la nekkoon ndax Sidi Lamine wax naa ni université bi mu jàngee ay universitaires yu bari yoo xam ne ñu ngi fi génnee fi mu génnee am idéologie bi mu am mais nag xëy na euh, xëy na amuñu chance nit ñi xam leen comme moom ni ñu ko xamee waaye daal pour ma résumer rek di wax ni daal tey jullit ñëpp ñoo ñàkk waaye daara ji moo ñàkk islam bi ci boppam moo ñàkk waaye réew mi ci boppam nag moo ñàkk ndax Sidi Lamine nekku fi woon sax damay wax dafa nekkaloon pour réew mi yëpp képp ku sa but bët mu sax xonq nga dem wal fajiri wax fa la nga xalaat te loolu dafa am solo ci réew damay wax ni réew il faut ñu fexe ba am ay contre pouvoir pouvoir bi équilibré mais buñu fexé ba nit ñi waxatuñu seen xalaat nit ñi dinañ jëf seen xalaat te bu boba moy gëna nek catastrophe kon bu kenn gëmloo réew mi ni manam dañ ko daño ñëpp daño wara bok fuñu jëm loolu kenn amul pouvoir bi même yalla mi am pouvoir bi sax defu ko yàlla bu ko neexon ñëpp gëm ko yalla wax na ci alcorane ni suma neexon ñëpp gëm kenn duma wéddi weddi bi sallallahu alayhi wasallam mi mu yoni sax joxuko pouvoir bobu kon kenn amul pouvoiru fu ma jëm fa la ñëpp jëm il faut ñu bàyyi nit ñi kenn ku ne ni nga xalaate ak ni nga yaakaaree ni mooy doxal mbir mi ñu ñu bàyyi la nga nga wax ci ci sa xalaat waaye di lancer un appel xam geen ni ñu ngi jëm ci ay élection yoo xam ne même pas trois mois nga xam ne élection yu bu ñu waxante dëgg rek yu jafe la yu jafe la ñu jëm képp ku jàpp ni élection yomb la jëm yaa ngi nax sa bopp ndax démocratie réew mi moo toll foofu tey ñu ñàkk ku mel ni Sidi Lamine nga xam ni ku amoon fit la ku amoon courage wu taxaw di wax li muy wax ci ni mu ko sentiré te dara du ko tënk amoon li ñuy wax xorriya tàmma kon ñun ñi nga xam ne tey réew mi rek moo ñu ñor dinañ am tuuti njàq dinañ am tuuti jaaxle waaye di wax ni rek nañu fexe ba li mu fi bàyyi mu nekk patrimoine patrimoine ren xeex dëgg rek loolu la fi si Lamine bàyyi bàyyi wu fi leneen xeex dëgg lu mu metti metti nga taxaw fi dëgg taxaw lu ne nag di nga ko dégg ndax Serigne Touba lu ne dégg na ko El Hadj lu ne dégg na ko. Siri Lamine mi tay ñi di ko tagg ñoo daan taxaw di ko fi lañu fekk ñun ñëpp ma ngi fàttaliku korok bi nga xamé ni président Macky Sall wax ak réew ni leen damay def 5 ans ba ci biir ñu defi pexé ba def 7 ans lamin Lamine moy ki ñëk a am courage taxaw ni ko eh président d'accord ma ak yow té loolu lañuy xaar ci doomu soxna yëpp loolu lañuy xaar ci doomu daara yi loolu lañuy xaar ci intellectuel yi nak réew mi bu ñëpp jaayé seen diiné jaay seen ngor rek réew mi dem ci kaw kon nak pour ñu gâter, rek moy di wax ni ñu ngi koy jalé famille ñaseen yépp waye diko jalé intellectuel yépp diko jalé mbollem ñi génération ku melni Bamba Ndiaye ñu ngi koy jalé Lamine na len diko jalé monde islamique diko jalé diplomatie bi yépp diko jalé njitu rewmi nak rewmi ñun ko bok kenn wu fi kenn ludul jamm waye jamm ji na teggu ci lolou du nek jamm mi mbëkkante lay mujj nek ndax dafa am ben philosophe bu mak bu ñu wax Hegel dañu la paix c'est pas un mot mais c'est un mode de vie kon jamm du lu ñuy wax mais lu ñuy dund la kon lolou lañ doon def ci témoignage ci Sidi Lamine Niass sen bokk elage malik Dramé di imam Dramé moko doon def di wax nak waye di waxale wa daara ji di di euh hadra bi yëpp di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته